autopsie ñoom nee nañu loolee xalaatuñu ko tey xalaatuñu ko ëllëg seen doom balu fetal moo ko rey mbir mi jeex na nañu leen ko jébbal ñu daal di koy denc avocat bi layala njabootu Idrissa Goudiaby nee na procureur wu Ziguinchor génn bi nga xam ne génn na ko fan yi ñu génn di wax ñetteelu autopsie loolee giraawaali gu rëy la te nag dafa bëgg a protéger ñi nga xam ne ñooy takk derrière yéen kaay gi di la vrai journal bàyyi mbir moomee wax ci élection législative yi ne moom la ñu dëg ma la nee na ci diwaanu département bu Dakar guerre moo fi am ci diggante socialiste yi ndax Barthélémy Dias moo jiite tête de liste Yewwi Askan Wi Aliou Ndoye mooy tête de liste départementale Benno Bokk Yaakaar ci département bu Dakar journal bi nee na ñaari socialiste jamono ji ñooy defante yéenekaay gi di Le Quotidien nee na fi nga xam ne mooy Pikine lu ne mën a fa ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la maanaam Bokk Yaakaar mën na koo ñàkk ndax ñu waa Benno jamono ji ca Pikine dañoo sonn ba maara de tale journal bi nee na li ko waral mooy investiture yi nga xam ne Benno def na ko ca diwaanu Pikine dara baaxu ci moo tax bëri na ñoo xam ne jamono ji ci Benno Bokk Yaakaar amutuñu yaakaar ne Benno dina gagner département bu Pikine Serigne Mansour Sy Djamila moom nag daan nay woote ngir ñu woteel Benno Bokk Yaakaar yéene kaay yi nga xam ne président Macky Sall def na ko fi jamono ji loole lay fësal jàpp ne loole rek war naa tax Benno Bokk Yaakaar am majorité assemblée nationale yéene kaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu Bougane Gueye Dany niki démb ma nga woon ca diwaanu koo xam ne votel nga Benno Bokk Yaakaar yow yaa ngi dooleel góor jigéen bugaan gi daan ne képp koo xam ne votel nga benn bokk yaakaar yow nag ànd na ci xiif bi bugaan gi daan ne képp koo xam ne votel nga benn bokk yaakaar yow na nga ngir nag ñu daal di yokk li nga xam ne mooy njëg yi moom bugaan ci biir journal bi nee na ñii nga xam ne ñoom lañu dénk réew mi ba élection jotee dañuy jëlub xaalis di jéem a ger askan wi di jox askan wi xaalis ngir ñu votel na bugaan nee na képp koo xam ne jox nañu la xaalis jëlal xaalis ba nga lekk ndax sa xaalis la waaye nag boo demee ba ca biir urne ba votelal coalition Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal yéen gi di l'info xëy li ñu xibar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal démb ñoo ngi woon ci département bu Dakar yene kaay gi ñu xëy fekk fa Khalifa Ababacar Sall nee na Benno Bokk Yaakaar ta am dara fii ci Dakar xanaa ñoom ñu sàcc ci élection yi waaye nag dinañu leen bàcc di leen di bàcc di leen di bàcc di leen di bàcce xalifa Sall mooy wax nee na nag combat ci boppam bu ñu waxante dëgg maanaam amul Dakar combat amul Dakar ci élection yi yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na 2012 ba léegi Macky Sall ay ndëngte lay indi ci fichier électoral bi bi carte électeur yu baree bari dañu koy téye bañ koo jox seeni boroma ginnaaw loolee alalu askan wi la Macky Sall jëla di ko séddale bu élection jotee ba pare nag di écarter ay adversaire lii la fi Macky Sall nekkee 2012 ba léegi ci lu jëm ci wàllum élection yéen kaay gi de libération ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias démb ma nga woon ca diwaanu Médina yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Bamba Fall nee Bamba Fall traître la yéen kaay gi di bés bi Malick Gakou nee na fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne moom la ñu dëg bala gisuma lenn lenn man Malick Gakou gisuma tere cohabitation am assemblée gis gisuma ko man luy tere cohabitation am man Malick Gakou gisuma ko fan fan ak benn ci weeru juillet wi ñu dëg ma la yéen a kaay gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa waa Corrèze tribunal bi atte journaliste yi nee na fan yi nga xam ne moom la ñu génn bëri na ay quotidien ak ay site internet yoo xam ne daat nañuy génne photo Pape Mamadou Seck ñu daal di koy mënute loolee nag salfaañe ak ak yelleefu Pape Mamadou Seck la loolee moo tax waa Corrèze ñoom naqarlu nañ ko ba mara détaillé yéen a kaay gi de Libération nee na ca Kër Massar njombe am na fa dafa am benn dal bu fa mabbu si ak njaboot am na ci kenn koo xam ne dafa faatoo yéen kaay gi de la sax ñu xëy fekk fa Marie Khemesse Ngom Ndiaye ministre de la santé nee na bi am ci biir hôpitaux yi ak sàggante bi nga xam ne am na ci personel médical bi loolee mooy yàq image su hôpitaux ye démb la ko xam na ci ndaje mi nga xam ne seqoon na ko ak directeur des de santé yéen a kaay gi di 24 heures ak Rewmi Quotidien nee na Blaise Compaoré ca Burkina Faso moom nag daan nay jéggalu bu baax a baax njabootug famille Thomas Sankara yéen a kaay sunu lamb ñu xëy fekk fa Zalba mi nga xam ne moo jiite écurie Japp moom na daan nay dànkaafu Balla Gaye numéro 2 nee na Balla Gaye numéro 2 na def attention digganteem ak Gris Bordeaux lu may loolee rek mën naa am boo xam ne musu ko foog ca dundama ndax combat bi nekkul combat boo xam ne dafay yomb ci doomu Double bi di Balla